bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati alwahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax calaynaa bi maxrifatil cilmi wa xassin axlaaqanaa bil xilmi wa saxxil lanaa abwaaba fadlika wansur calaynaa xazaa'ina raxmatika yaa arhamar raahimiin yaa rabbal aalamiin mbokk yi bàyyi xel ci Sud seen rajo assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa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 di békki ñi nga xam ne ñi ngi woote di jot li seeni cant ak seeni ngërëm naka noonu di jot seeni ñaan rawatina suñu tomb waxtaan yi nga xam ne ci lañ nekkoon ay bis yëpp waxtaan woowu sax jeexut waaye ñaare bu ñëwee ci weekend bi lu mel ne juma ak samedi ak dimanche dañ ci daan indi waxtaani boppam bu ko defee buñ ñëwaatee ba altine jàmm ñu wéyal waxtaan wi nga xam ne mooy doon temu semaine bi yal nañu yàlla may ñu dund ba booba te weesu ko ñoo ngi siyaare bu baax a baax ilimaan yi waaye di nuyu bu baax a baax kilifa yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel ñëpp di yónnee seeni ñaan ak seeni siyaare di ci beral am nuyoo bu baax suñu e, wëllëre suñu xarit suñu sëriñ sëriñ baara bu sëñ Modou Faati xëri ak mboolem soppeek am di jàmm yi nga xam ne ñi ngi jaarale ci moom ay nuyoo yëpp mu jëm si ci ñun di nuyu baax suñu nijaay alxaaji Ousmane Ñang bu nget gën nañ koo nuyu waaye suñu xelan ci moom saa su nekk naka noonu suñu sëriñ sëñ Moustapha Dem suñu mag nekk foofu ci Jurbel ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel jotaay bi kulim juum tey nag dañ doon ñëw bëgg a waxtaanee beneen waxtaan boo xamante ne xëy na mu jaar fi ci samedi ji ñuy waxtaane lu jëm ci li ñuy wax nattu nattu wala ñuy wax balaa léeg-léeg ma tudde ko taxawaay bi nga xam ne moom la ab jullit war a am ci li nga xamante ne mooy nattu ndax bari na yuy dal nit yoo xamante ne bu ko nit ki jëlee jàppe ko rek mu nekk nattu ci moom day doon loo xam ne day xam ne lu koy exame la lu koy natt la rek digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala ndax dañuy faral di wax ne daa bokk ci màndarga yi wane ne yàlla bëgg na jaam bi daa bokk ci màndarga yi wane yàlla bëgg na nit ki mooy nattu yi nga xam ne moom la koy teg mooy nattu yi nga xam ne moom la koy teg ida axaba xawman eh, ibtalaahum fa man radiya fa lahu rida wa man saqata fa lahu suxt eh, yonent bi alayhi salaatu nee na ki gën a rëy ab cër ci nit ñi ci nattu yi day tegtale ki maqaamaam gën a rëy ca boroomam subhaanahu mu ne yàlla bu bëggee aw nit da leen di teg ay nattu koo xam ne góorgóorlu na ca nattu ya am ca ngërëmul borom bi subxanahu wa taala yàlla nañ bokk ci ñi nga xam ne noonu la ñuy jàngate yi nga xam ne moo ñuy dal ci suñu dund ndax dund gu neex na tëx ci fànn gépp jafe na lool xaw tuuti kon nga ne kenn amu ko waaye nag kiy góorgóorlu ci li dox digganteem ak boroomam subxanahu wa taala yi koy gaar ci diggante bi ci ay metti métit yi koy gaar ci diggante bi ci ay nattu day nekk mbir moo xam ne day tàmbalee woyof ci moom ndax da koy jàppee rek mu nekk escalier bu koy yéege jëme ko ci ngërëmul borom bi subxanahu wa taala moom la sëñ Moussa Ka doon woy ca woyam wa di wax naan nattu mooy kirkiraanul awliya nee na awliya yi mooy ñi nga xam ne dañoo méngoo seeni mbir ci seen borom subxanahu wa ta'ala tey góorgóorlu ci jëf lu baax nee na nattu mooy échelle bi ñuy jaar mooy ascenseur bi wala mooy escalier yi nga xam ne ci la ñuy teg seeni tànk di jéggi jëm ca borom bi subxanahu wa ta'ala moo tax mu ne ku weddi laajal xayrul anbiya yi muy ngën ji mindeef sallallahu alayhi wa nga xam ne lu ne dund na ko ci ay nattu lim na ca nattu yu baree bari yoo xam ne dal na ay gaa yu baax yoo xam ne su fekkoon nit ki day baax niñ koy faral di waxe wala muy koo xam ne day góorgóorlu ci bàyyi xel boromam loolaay tax a mucc ci am nattu wala ay jafe-jafe danga naan kon kooka ko am waaye sama borom subxanahu wa taala ni mu rëdde àdduna ak doxalin wi nga xam ne moo fi am ak li dox digganteem ak jaamam yi loolu meneen mbir la beneen taxawaay la boo xam ne euh, léeg-léeg ñu fàttali ko wàññiwul dara. ndax daa waxoon ne ndax nit ñi dañoo yaakaar ne dañ ñaan gëm nañ rek ma bàyyi leen noonu déedéet danaa leen nattu waaw wala xad fatana alladina min qablihim waaw danaa leen nattu ndax nattu woon naa ña leen jiitu danaa leen nattu ba gëm yàlla gi doon dëgg ci ñoom wala ma natu leen ba xam ne ndekete dañ doon wax rek borom bi subxanahu wa taala bu yàlla dogalee nit ki am nattu moo xam nattu bi daadal ci alalam moo xam nattu bi daa dal ci aw yaramam moo xam nattu bi daa dal ci njabootam waaye mu bañ a saalit delloo lépp boroomam subhaanahu wa taala borom bi bëkki jaam boobu borom bi bëkki jaam boobu ndax uh, balaa bu wàccee ci ab jullit moo gën ci moom ndax mën naa am daa ñëw ngir fegal ko mbugalum ëllëg yowmal xiyaam te sax léeg-léeg sax muy ab laaj boo xam ne dana jaaxal nit nan la yëkkatikuy daraja di amee sippikuk bàkkaar am te ay nattu àndut ak moom faaw nit ki am fu mu jaar ñu tëgg ko mu jaar ci ay métti métit muñ gi muñ métit yi muy jaar ak jaar-jaar bi muy am moo koy mooñ bam doon lim doon damay faral di wax ne jaar-jaar mooy wutale ñëpp waaye xëy na ñëpp mën nañoo bokk nu ñu sosoo waaye biñ sosoo ba noppi nag fiñ ñuy jaarale ak jaar-jaar yi ñu am ak niñ ñuy mooñe li ñuy traversé ak niñ koy dunde loolu mooy jeexital ginnaaw ba nag ci jëmmi kenn ku nekk ci moom maanaam ci personnalité wu nit ki loolu day def jeexital ci moom moo tax nit ñi koy tànnal ay jaar-jaaram ak ñu koy jaarale or mën naa doon weñ yeneen weñ yi donte cosaanam lu am lu gànjaru la waaye li koy jox dayoo dëgg-dëgg mooy fi ñu koy jaarale léeg-léeg boo demee danga nga fekk ñu koy tëgg dañ koy togg ba mu nekkum ndox hmm. bax ci taal bi waaw ba nekkum ndox hmm. ñu lakk ko lakk yu metti waaye nose ko nañ koy nosee def ko nañ koy def buñ noppee mu am valeur lool bu ñëwee ci kër gi ñu denc ko fa gën a am sécurité di ko jaayee njëggu seer di ko wàllee mu mel ne jaar-jaar lu am solo la natt lu am solo la ndax li lekk eh, nga romb tey téyeer bi mu exposé am mbubb dugal ko ci mannequin bi wékk ko yére bi rafet lool ba nga bëgg ko waaye fi yére bi jaar door a mën a dugg foofu fiñ ko jaarale fépp buñ la ko waxoon nga ne déedéet doomu aadama itam faaw yi jaar ci kawam yëpp mu di ci mooñoo ndax loolu daa bokk ci li nga xam ne dañ ciy dañ ciy dañ ciy dañ ciy amee jom daa bokk ci ci amee jom moo tax ma ne ab laaj lay doon sax bu nit ci di laaj ne naka la nit di bëgg a àggee ca kaw naka la nit di bëgg a ci bakar naka la di bëgg a doone xaritu boroomam te du jaar ak moom fam jaar ak gaay du jaar moom fam jaaral gaay yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne suñu borom subxanahu wa taala bu nammee ci jaam bi aw yiw day gaawal ay metitam ci àdduna waaw day gaawal ay tartaram ci àdduna ay mbugalam uquba fi dunya waaye borom bi subxanahu wa taala bu fekkee jaam bi daa nam ci aw ay borom bi da koy téyel ay bàkkaaram ba ëllëg yowmal xiyaam moo tax du fu ñuy ñeeyee nit du fu ñuy ñeeyee ci. Eh, nit koo xamante ne da daana ci lu ñu tudde ak péex péex moom fañ ci ñëwee nit ëllëg yow mal lay doon àdduna yow mi tawat gis ku wér di dox tegtalewu ne da nga koy ñee ci wir gi ka ngay ñee ëllëg yow mal xiyaam mooy ka nga xamante ne dana siggi lagg waaxu jëm ci aljanna ya ak si peekuy màq ay si daraja ak yëkkati si si peekuy bàkkaar ak yëkkati ku daraja borom bi subxanahu wa day jaar ak nit foofu moo Eh, ñi nga xam ne dañoo xamoon ñoom loolu da leen doon yéem ba nga xam ne jeexital yiw rek eh, lay def ci ñoom imaam Xasanul Basri daal na wax ne bu leen di bañ balaa yi nga xam ne day dal ci kaw nit waaw balaa yi nga xam ne mooy dal ci kawam di ay nattu xew-xew yi mettit yi waaw mettit yi léeg mu doon information bu la déranger léeg mu doon nattu bu dal ci sa kaw léeg-léeg mu doon nattu bi dal ci sa kaw yàlla xam na ne léeg-léeg nattu dal ci kaw nit eh, bu fekkonte ne nattu bi poids bu ñu gis kenn du xam diisaay ba num toll waaye jàmbaar dëgg mooy yanu ko siggi jàkkaarloo ak nit ñi waaw yanu ko siggi jàkkaarloo ak nit ñi ci loolu nit ki di di jàngate moom mooy kan ndax yëg gim yëg ne borom bi subxanahu wa taala mooy tege mooy teggee doomu aadama sabab rek la am waaw sabab rek la am moom day sabablu da ngay sabablu ci wuti. boo sababloo ci wut ni nga war a wute te muy ni neex yàlla boo amee sant ko boo amut sant ko boo sababloo ci wut ak wér yaram ci ni ko borom bi subxanahu wa taala santaane docteur ya santaane ko noonu ndax sabab yàlla yàlla mooñe noonu adduna boo wéree santal yàlla boo wiru santal yàlla waaye léeg-léeg dara dal ci kaw nit ci loo xamante ne nattu la ay balaa la ay xew-xew yu naqaree dégg la ay jafe-jafe la jaam bi day bum ca mer bum ca tiit ndax bari na mbir moo xam ne nit ki bañ na ko lool te fekk sag mucc ci la nekk te fekk sag mucc ci mbir moomu la nekk sag yëkkatiku ci mbir moomu la nekk sag yokk ci mbir moomu la nekk am na koo xam ne bala bu liggéeyukaay bu muy liggéey dañ ko fa bundu xataal te ko fa yu metti yàlla xam na ne euh, maanaam loolu day fekk ne léeg bu loolu amul leneen du am mën naa am sax borom bi dencal na ko poste bu rëy ci beneen barab dencal ko yëkkati kuy màqaama ci beneen barab waaye faw rek ñu toñ toñal ko ba jëlee ko fii moom nag du ci bañ dara léeg-léeg mu tëdd guddi du nelaw stressé ndax jàpp ne dañ may fexeel jiw damaa bañ kii daa bëgg ma alku daf maa bëgg a xañ li ma yor daa bëgg nangu sama place bi daa bëgg ma ñàkk post bi léeg mu nekk am natt bu dal ci kawam nga xamante ne jafe la cay am waaye ndekete ak mucc rek la ci moom damay faral di wax ne day am ba ci biirub sëy am na koo xamante ne sëy ba mu njëkk a sëy jafe-jafe yam ci dund bu ko dundul woon dugg ci sëyam bi mu nekk tey moo xam muy góor wala muy jigéen te bi mu ci duggee fàtt na bépp jafe-jafe bu mu am ndax borom bi subxanahu wa ta'ala noonu la mooñu àdduna moo tax imaam Xasan al Basri wax ne jërul moos xew-xew yeeg nattu yi doon loo xam ne lu lay naqari la wala mu doon loo xam ne danga nga cay mer bay jàmbat ndax fa la rubba amrin takrahuhu fihi najaatuka bari na mbir moo xam ne nit ki bañ na ko lool sib ko lool ragal ko lool waaye sëg mucc ca la nekk bari na mbir moo xam ne nit ki da ko bëgg lool di ca daw ba bëccëg mooy ca rek mooy ca mooy ca sigiñu ca te yàlla xam na ne alkandeem dong nga ca nekk alkandeem dong nga ca nekk mu jaral ko lu ne mu jaral ko lu ne ngir jot ci léeg mu jaral ko wax lu dul dëgg léeg mu jaral ko yàq nit léeg mu jaral ko defi tapale ba jot ca rek ba jot ci rek loola daal di koy alak moo tax ki nga xam ne dafa am xel lenn la yittewoo mooy digganteem ak boppam te mooy digganteem ak boroomam damay faral di wax ne lu dal ci àdduna ci nit ci mbir bu ñëwee mbir mu garaaw xew na léeg-léeg nga di ah nangam le xew garaaw na de man de xew ma nu ma koy waxee maa ngi koy wax sama e, rak ju jigéen ju ma bokkal lépp mooy jox benn information bopp daa rëy ci moom ba nga xam ne bi mu ko tàmbalee wax dana ba tey ñoo bàyyi ba suba ndax lii bëgguma nga fanaanoo ko ma ne ko ñaar rek kay am maanaam nga wax nit ki ab xew-xew bu fekkee dafa dal ci kawam moom defe naa euh, jaaxle wala wala ñàkk nelaw du ko faj la koy faj mooy mu xool lam ca def la ca jaaduwut mu bañ koo mu bàyyi ko la ca jaadu mu góorgóorlu ci te jéem a fexe jubóog boroomam xew-xew bu dalut ci sa kaw nag nga xam ne du sa responsabilité ci kaw keneen la dal ñu la koy nettali la ca ëpp sa yoon nekku ci commentaire rek nga ci am loolu moom la ñuy wax nit ki mooy ne ko la nga ca war a jànge rikk waaye na ko ca jànge ndax am na loo ca a jànge nag bu dee lu baax lu yéeme loo xam ne nit ki da koo def nga yëg ko na nga ca jànge yow jéem a def lu baax jéem a jéem a góorgóorlu bu dee safaan bala ba mu jëlee ca alkande yow la la ca war mooy jéem a góorgóorlu ba moytandiku loolu ba yoon woowa bañ a nekk saw yoon nga bañ caa jaar ku ku mel noonu sàgganoo càggante dëgg nag mooy koo xam ne day woon ginnaaw waaraate wa waaraate wa mooy du ko bas am xelam du ko bas am xelam ba mbir yi nga xam ne mooy dal ci kawam mu mën koo téye ni mu ko war a téye ndax faaw am yu dal ci sa kaw faaw nga am yoo xam ne ci àdduna da ngay jànkonte ak moom guddi di jànkonte ak moom bëccëg taxawaay bi ngay am nag ba man koo ba mën koo saytu taxawaay bi ngay am ba mën a dund ak moom njàmbaar geey taxawaay bi yitte ji dafa mel ne foofu yi la ñuy raw ñëpp foofu la rawe rawee waaw raw rek foofu la rawe rawee moo tax ab jullit ci wàllu nattu day barab boo xam ne wala day mbir moo xam ne mbir muy maye tiyaaba mbir mbir muy maye tiyaaba la waaye tiyaaba ji nga xam ne moom la nit ki day amee ci nattu mooy ki nga xam ne daa jaar ci yoonu muñ daa jaar ci yoonu muñ yoonu muñ woowu it nit ki mënu cee jaar lu dul ne dafa am ag dogu waaw dafa am volonté dafa am ak dogu dogu goo xam ne azimati imaniyati lay doon waaw maanaam dogu lay doon goo xam dogu gëm yàlla lay doon faw ngëm yàlla gu dëgër moo ko yóbbu ci mu euh, nangu dogalu borom bi subxanahu wa taala coobare woo attan ko waaw coobare attan ko ba mën koo dund moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci xadis ba imaam muslim net li wax ne ajaban li amril mu'min xadis bu yéeme la ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu xayr wa laysa daaka li axadin illa lil mu'mini in asaabathu sarraahu shakara fa kaana xayran lah wa in asaabathu darraa'u sabara fa kaana xayran lah sallallahu alayhi wa sallam nee na ab julli daal ay mbiram yéeme na waaw allahu akbar yéeme na ñu ne ah nu mu yéemee mu ne loolu day ñi gëm ñoo ko man ñi gëm mooy li ma waxoon léegi yoonu ngëm ngëm gu dëgër jaam bi wóolu boroomam moo ko yóbbu ci mu àttan mu ne aji gëm ji li tax ay mbiram yéeme mooy bu mbir ñëwee walla ay mbiram lépp aw yiw la ay mbiram lépp lépp aw yiw la nga xam ne aji gëm ji kon amut amut luy nekk ak neen ci moom amut luy nekk ak neen ci moom lu neex li yiw la lu naqari li yiw la moo tax yonent bi ne kii daal yéem na ma koo xamante ne sëñ bi bu yàqulee bu marché bi neexut moom gañe na lu bari bu xëyee marché bi neex gañe na lu bari koo xamante ne bu su feebaree am na yiwu baree baree bari ci feebaram bi waaye bu wéree it am na yiwu baree bari ci wéram gi koo xam ne buñ ko joxee alal am na yiwu baree bari ci alal jiñ ko jox buñ ko xañee alal am na yiwu baree baree bari allahu akbar yonent bi ne kii ay mbiram yéeme na ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu xayr wa laysa thaaka li ahadin illa lil mu'min nee na lii nag ak njàmbaare amut gu ko mën a maye lu dul doon aji gëm doon aji gëm ndax ci gëm ndeket daa bokk ci li wane ne gëm na te muy dëgg alayhi salaatu wasalaam nee na bu mbir yi yombee ci moom mu sant yàlla bu ko defee mu nekk aw yiw ci moom waaw sant yàlla mooy du euh, moom du bàkku waaw du bàkku maanaam bu xëyee marché bi neex du tax mu bàkku bu lijjantee dara loolu sotti du tax mu bàkku baaraam moom moom du ko joxoñ mukk jëmale ko cib dënnam waaye saa yu ko yëkkatee rek da koy tàllal mu ne jodd mu joxoñ ko boroomam subxanahu wa taala moo tax da koy sant bu mettee ci moom ñàkk jàpp ni mu muñ ko mu a ngoog kon ñaar yi ndekete mooy mbir mi ñaar yi ñoo ànd mooy sant ak muñ sant ak muñ waaw sant ak muñ ku la sant moo la ëpp yiw muñ moo la ëpp yiw ñaari jikko ngi nii mooy mën a sant waaye mën a muñ waaw mën a sant cant gi nag mooy cantuk yëg li la yàlla defal ba noppi nga jeexalaat ko ci fi yàlla bëgg cantuk bañ a bàkku ngir dégaase sa bopp xam ne doo ci waaye borom bi subxanahu wa taala rek la ak coobareem waaye doon koo xam ne ku mën a muñ la ku mën a muñ la mag ñi dañ daan yar nit ci mu mën a sant waaye dañ ko daan yar ci mu mën a muñ moo tax borom bi subxanahu wa taala tagg ñi nga xam ne ay muñkat lañ. nee na na leen na nga na nga leen bégal na nga bégal muñkat yi muñkat yi nga xam ne lu metti bo dalee ci ñoom ñu yëg ne maa yàlla ndax ngëm gaa tax ngëm gaa tax ñu yëg ne maa yàlla maa fi ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog taayif bañ ko dóoree ay xeer xaañ ko lu ne ñu def ko ko moom benn bu doon kuy am euh, problème da nga naan benn rek la amoon muy benn occupation mooy ndax yàlla merewuma man daal li xew nii sama diggante sama borom lu ci xew nga xam ne moom benn laaj boobu la am bañ na ko bi muy wax boromam da ko wax ne ko soo ma merewul rek lii lépp garaawut waaw su fekkee merewoo ma nga xam ne kontaan nga ci man ñu xaañ ma garaawut waaw ñu weddi ma garaawut ñu xëpp ma suuf garaawut ñu bañ maa gëm garaawut man daal benn benn yitte laa am mooy doon sa xarit nga bañ maa mere loolu bu ko ñëpp doon laaj jàmm na ñooyu nga xam ne lu man di xew rek jàmm bi li mu njëkk a xool mooy digganteem ak boromam lu ci xew waaw lu ci xew su fekkee borom bi la waaw góor àdduna bépp bu ñu àndee ne la defoo fi dara it dootu la déranger ndax yàlla xam na ne bu ñëpp àndee di la tàccu te yàlla jéppi la tàccu ye moom amut benn njariñ waaye bu ñëpp àndee fas seeni loxo te fekk nga teg saw tànk ci fi yàlla bëgg ko fa teg tànkam ëllëg yowmal xiyaam fa ñëpp bëgg ku leen fa joxe loxo borom bi subxanahu wa taala dana la teg ca loxo yu sedd sa xol dana la teg ki loxo yu sedd sa xol moo tax mu ne wa bashiri saabirina alladina ida asabathum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajixuun waaye wa bashiri saabiriin la tàmbalee waaw bégalal bégalal ñi nga xam ne ay muñkat lañ waaw ñoom day ulaika alayhim salawaatum min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtaduun ndeysaan yal nañ ci yàlla boole ñooy ñooy ñi nga xam ne ñooy am xéewalu borom bi subxanahu wa taala ñooy am wàccuwaayam ëllëg mooy ñi nga xamante ne ñoom la borom bi subxanahu wa taala jubal mbokk Euh, nattu moog dundug doomu aadama ànd am na mbir yoo xamante ne faw kuy dund ci àdduna dana am yoo xam ne dana ko tegoo yonent bi mucc ci woon as-sahabatul kiram ridwanullahi alayhim mucc ñu ci woon ña topp ci seen ginnaaw te doon góorgóorlu mucc ñu ci woon ba ilaa yawmi diin amul kuy tegu ci yoon wi te doo fa fekk ay dëkk wala nga poussière wala nga am yu la taq àdduna moom loo fi bëgg a rek dana am effort booy def ngir taxawal loolu coono yooyu nga ciy tegoo rek coono yooyu mooy nattu bu ko nit ci delloo ci boromam subxanahu wa taala te nangoo muñ te nangoo góorgóorlu bu boobaa nattu ba day woyof te jërta reetaane nit jërta reetaane nit moo tax mag ñi daañ daañ wax naan la ku ne ci xare waroo ree ñu jam ndax xamoo balaa jeex danañ la jamam déet am na koo xam ne nattu wéra di dal na ko ba nit ñi yaakaar ne day faatu mu wéraat ba dund fi lu baree baree bari bari na ñoo xam ne eh, amatuñu woon soxla ci moom ndax jàpp ne dootu wér dem na ci daju ñu bari ca ñooña borom bi mën na ko am na koo xam ne nattum ñàkk dal na ko ba nit ñi boolewuñ ko ci dara bis ñëw na rek ñu xëy suba di ko tudd boole ko ci ñi nga xamante ne ñoo ëpp alal loolu borom bi subxanahu wa taala mooy mooñe noonu àdduna na nit ki soxal yi yeneen yi top ci ginnaaw nit ki te dooni cër yëpp nga xam ne mbirum borom bi subxanahu wa taala moo koy moo koy jox ku ko neex moo koy xañ ku ko neex waaw moo koy xañ ku ko neex. moo tax musiba euh, musiba mooy lu metti waaw mooy lu metti euh, Sufyaan euh, Sufyaanu Suuri da daan wax naan maa yukrahu la abdu xayran lahu mimma yuhibbu nee na bari na loo xam ne jaam bi da koo bañ te fekk lim bañ moo gën ci moom lim bëgg <laughs> léeg-léeg mu bëgg loo xamante ne lim bëgg moo gën a bon ci moom foofu lim bañ waaw doomu aadama xamut moo tax sax ngay tànnloo sa borom subxanahu wa ta'ala moo tax nga di ko tànnloo waaw moo tax nga di ko tànnaloo moo tax nga yeesalaat sa taxawaay jëm ci moom kon euh, euh, mi ngi noonu nga xam ne euh, ñi nga xam ne dañoo juboo woon seen borom subxanahu wa bu lépp doxee lépp neex dañ daan tiit waaw dañ daan tiit dañ daan wax naan lu xew waaye buñ tawatee nga xamante ne léegi nag seen diggante seen borom dara du xatu fi ñu ngi koy yëg ndax nit day toll foo xam ne léeg-léeg ci jafe-jafe da ciy yëgee yàlla. da ciy yëge yàlla waaye yëg gi nag bi day xool ndax cofeel nga koy yëg yëgu cofeel wala yëgu yëgu njàmban nga koy yëg moo tax doo wax ma ah, man de xawma lu ma def yàlla wala yàlla de deseelatuma dara wala lii kay kenn xamu ko déedéet yow ci sa bopp yaay am yëg-yëg boo xam ne lu yëg-yëgu naxtaan waaye yëg-yëgu cofeel lay doon gu dox sa diggante sa borom mooy lim lu mu namm ci man rek loolu moo gën te kenn mënu ci dara te kenn mënu ci dara moo tax may faral di wax ne nit toog na di jàmbat ba yaakaar ne yàlla da koo fàtte te bi mu toogee di jàmbat bu doon évaluer li ko yàlla defal mënu koo lim ci benn jotaay mënu koo lim ci benn jotaay kon jafe-jafe mënta ñàkk moog dundug nit ñoo ànd waaye nag bul daw jëm ca jafe-jafe ya da ngay def effort teggi ko sa kemtalaayal kattan te it bul nangu ku la ko teg lu daal ci sa kaw te du sa coobare te doonum nattu nga muñ ko muñ gu rafet te góorgóorlu bàyyee sa bopp sa borom te xam ne bu borom bi subxanahu wa taala doxee sa ku lor kenn mënu laa lor. waaye ku yàlla seetaan it kenn mënta dox sa digganteeg lor yàlla ñu boole musal yàlla ñu boole sàmm yàlla ñu boole aar yàlla ñu defal kendalu jàmm ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di békk ni ngeen di ànde ak ñun jotaay bi jaajëfal imaam alxaaji oustaz Alioune Sall moom la ñuy bàyyee toogu bi mu ànd ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali kama la nihaya li kamalika wa adada kamali seen mbokku Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa